ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant ñoo ngi fi nga xamante ni mooy fulum boo déggee fulum mooy zone Morolan la nekkee ñu daje war fee dajeeg champion bu mag muy canta mu bëree barki Dembo Ndiaye fële ca arena daan fa jël bu rëy kan la fa dajaloon ki ñuy naan Omo Junior fan la lay waree ikiri xam sa cosaan rakk la ci zoro mbeur di domi morala def lu ne ci làmb yaakaar naa ni ku ko xamul ku ne deg nga ko ndax def na lu neex ci zone morala ak Dakar mom lañu dalal tay ji ni fi ci Fulum sir Azem TV ñu bàyyi ko mu nuyo toti ñu continuer waxtan bi ñong lay nuyu waaw ah, onze bi laa maa duni di fay di fulom, duni ah di nuyu duni Fulum di nuyu tur Morolan bi yëpp di nuyu ñu fi toog ñëpp ah di siyaar kulluhum jaay waaw ngi di def combat bu rëy keroog combat bi don combat boo xamante ni yaakaar ni mët ñaari at sax wala at ak six mois mu bu metti chanta di def boobu ba làmba ji métti ci moom lool ci ni ma gisee keroog ndax demoon naa stade xool ni mu ko paree ma laaj ko après mu ne ma combat bi métti woon na Canta lu waral loolu Canta dafa amul doole wala Canta daa amul benn fan su club bu mag. waaw loolu moom lépp sant la rek xam nga ndaw moom boo nekkee si dara di tàmbale dara xëyul sotti quoi loo gis rek benn la commencé te boo doonee mbër doon. xale di doog a commencé combat deux mois sax day métti asuma nga pare combat ay un un mois un an ay six mois day métti quoi loolu la mais am na ñuy jàppale quoi mais bu ñu soñoon mu gën a yooxu ndax soxla nañ loolu quoi. Eh. waa Canta defe naa ni keroog nga bëre Iba Mar bëre bu rëy Canta keroog mooy sa ñaata combat. mooy presque sama sixième combat. Euh, sixième combat ñaata victoire rek ñaata défaite. cinq victoire. benn defet kon canta jot na tey nga am ñi nga xamante ni mooy ay booy Dakar ku ci mel ni Ada Fass xale yooyu yëpp say naataangoo lañu lu tax canta mënul am boo yooyu noonu. waaw ñuy seen kaw ñuy seen kaw bu baax ndax xamal làmb moom saa yoo daana rek da ngay teg tànk bu te ñu ngi si yoon boobu noonu incha allah xam naa du yàgg dinañ dugg foofu noonu si foofu lañ taxawee quoi ndax làmb bii moo amoon lu ñu xaw a kii tuuti kon jàll nañ ko moom incha allah du yàgg tuuti incha allah. canta bi nga jógee combat bi woon keroog nga bëree journée bu mag journée boobu bëriwul mbër yu koy bëree ndax defe naa ni journée bu mel noonu foofu ca arena nekk na journée boo xamante ni journée bu rëy la journée boobu noonu est-ce que sa njàmbaar moo la fa dugal wala sa lan la. waaw njàmbaar rek ak kon tey jii nii nit ki moom si àdduna lu lo wara si lo wara duggu rek da nga si quoi kon lu doon sa ki te tay ji ni ak ak ménager bu baax tamit quoi ndax lamb mom da ngay am yoon moy lima wax chaque jour dama koy wax ci sama interview man man dama doon ko xamanteni man entraînement rek lañ ma sante man damay xéré ñun ma da ngay beure jour terre rek quoi ndax man mom ma sama bop dañ ma naan defal li rek nga def. waaw cianta lolu am solo ñu leen di fatali ko waat rek ñoo ngi ci Fulum. teew ñëw seet si canta di doomi Morala mu passé journée bu am solo ndax journée bu mel noonu ku ci bëre ku nekk pour man boo si jogaatee war nga mën a amaat journée boo xamante ni journée bu am doole la wala nga am mbër bu am doole canta fu mu war a teg bëtam essa yi. waaw ñun moom suñu objectif ci làmb mooy roi des arènes rek quoi suñu objectif ci làmb mooy mais nag làmb boo si nekkee day am fooy fooy commencé ñu ngi si yoon boobu quoi daa am fu ñu teg suñu tànk. te ñu ngi si loolu di liggéey te di xool li nekk suñu kanam quoi. waaw mbokk yi bu ñu foofu dañuy dellu si ñi nga xamante ni ñoo ngi côté fulum canta booy bëree damay gis keroog dafa naa su ma juumul benn kaar laa fi gis xaw ñaari kaar canta pourquoi sa mobilisation bi mënul ëpp noonu ak fi turu canta àgg tey lu waral loolu noonu. waaw loolu moom tey jii nii mooy wax rek xam nga làmb moom boo da ngay da ngay woo sa mbokk yëpp quoi ndax boo seetee moo si signature yeeg si lépp mooy li rek te ji man aw ma ëpp fulum man fulum laay yeewoo te man bu ma fu ma mën a dem rek fulum laay jaayanteel quoi te tey jii nii bu ñuy surtout dama koy a jeunesse su fulum bee xale yi nañ si jàpp xam ne tey jii nii ñun bu ñuy xeex yàlla fulum la am na ñuy dem ne mais nañ gën a mobiliser ndax war nañoo mën a am combat fii di génne ay six cars jëm kaw ay dix cars mais tey jii nii xam nga affaire yi daal nañ si gën a góorgóorlu nit ñi jàpp si xam ni tey jii nii ñun bëreewuñu ngir yoofu bëreewuñu ngir feneen dañuy bëre ngir fulum tey jii nii fi ñuy dégg yeneen i dëkk yi wala fen jeune jeune di àgg feneen bëgg nañ fulum àgg foofu noonu ñun loolu la ñuy xeex kon nañ ñu jàppale si loolu ndaw yi lañ wax ndawu fulum quoi ñu jàpp si loolu noonu. am na loo xamante ni nag làmb àndul ak moom. ndax Thianta moo ngi sóoraale li koy yàkkal ci làmb ak loo xamante ni bëgg na ko pour carrière am am ko ëllëg. waaw ba ndax li li may def ni nekkul ni nit moo ma koy defloo de man maa ko bëgg sama te dafa nekk loo xamante ni man tey jii nii la am lu mu si bëgg ko nekkul ni mbër laa wala yooyu noonu dafa am yoon bu ma jël te mooy li ma la waxuma la sax nit kuy kii nii. mais tey jii nii boo bu fekkee da nga ma jege sax ta amuloo ma njëriñ ma loolu maa ngi sóoraal bu baax te tey jii nii ñi nga xam ñoo topp sama ginnaaw bàyyi ñu ma quoi xam nga ndaw moom boo nekkee ndaw da ngay jàppeen tamit loo def baax na mais sant yàlla ba am naa ñoo xamante ne ji bu ma defee am nañu sañ-sañ ñoo si man nee defal lii defal lii quoi. mooy fan fan nga viser sa bopp ba war a liggéey loolu noonu ak lan ngay préparer. mooy li ma la rek man benn vision laa am si làmb mooy doon roi des arènes daanaka doon Modou Lo yooyu ma solo doon roi des arènes rek mooy. waaw ñoo ngi rafetlu kàddu yi ki nga xamante ni mooy Baro jaar na fi ak Aïda bu Azim TV sama maan a ngi noonu di jëdev canta defe naa ne ñoo ngi si càppaandaw li mooy li ma la wax sànq rek li duuf ci nag le xajul ci kin li xam naa dañuy jox cantaa mu wax kàddum yu mujj ci fii ci folum waa maa ngi santaat bu baax rek sant yàlla bu baax sant sama waa dëkk waa waa waa fulum di sant waa Morolan tund Morolan bi yépp aw seen fay gis naa nu ñuy jàppee ci combat bu baax a baax ndax nit amul lu dul mbokkam quoi di sant képp ki nga xamante ni day bëggee Thianta ak ñi nga xamante ni tey ji combat bi yàgg na lool ñu jël seen alal ñoom di si def ki si mel ni sama papa Antoine du taay di ko wax day sonn si Thianta bu baax a baax ku si mel ni Goro ku si mel ni ay Abdou Naar aw nga fayam waaw nekk ba yoof nga xamante ni tey jii nii damay dem gàllem mu dalal ma xam jàpp si combat bi di sant waa yoof bi yépp waaw di sant ñëpp ki nga xamante ñëpp ñi nga xamante dañuy bëggee Canta rek maa sant bu di sant sama fans club bi aw ma seen fay xamante Canta bu amee combat du ñu nelaw maa leen di sant bu baax a baax ah. waaw Canta loolu am na solo Canta ñoo ngi lay jaajëfal sa doomu nday bëri na dëmb yàlla may ko ci ndam euh, looy wax làmp ak lan ngay gërëmee làmp pour ndamam bi démb. waaw di nga encouragé di nga wax noonu la affaire yi moom di wax kontaan nañ quoi ndax laam moom loolu rek lañ si bëgg quoi waaw mu yokk entraînement rek nekkaat si lu mu nekkoon quoi te xam ni moom gars yi commencé guñ def dara loolu du dara na si nekkaat rek ñu continuer. defe naa ne bu yoon jeexul wax si du jeex dina ñëwaat canta fekk ko fi nga xamante ne mooy yoof si ikirem ñu fekk ko foofu gars yi xam ne AGM TV moo jógee ba Morola mhm. ñëw seet si canta foofu noonu loolu dina nekk lu am solo. Wow, di siyaara nyep, di bege ñëpp nek fi nga xamante ni fulum ngeen ànd ceeg Père si Azem TV ya naa ni si kanam tuuti dinañu am mbër yo xamante ni war nañ leen seet si ci diwaanu Morolan nek ndax si Morolan la ñuy njëkkee seet si mbër yëpp loolu na ngeen ko samp ko indil ak fu ma mënti dem rek leen wa Azem TV nyomomom, ma moom fuñ ma wax Père Bécaye dem mangi ngi wàcc lu kawe di remercier ñep di siar sama cameraman bi comme ni ma koy waxaatee rek ñima jappalé comme mbër yi noonu lañ koy waxé ñom Baro ñom Ayra ñoo ñoma jappalé ci si combat bi solo cianta ñoo ngi lay remercier. wa man, fay bu baax baax di contane si yeen tamit ah li rafet na moy li nga wax sank rek xam nga nit ku mom sa te tay ji ni bu sit sit bo xamanteni sa dëkk la bu la woon sax si guddi tey ji nii neel dañ bëgg def émission da nga war a jóg waa ndax tey jii nii li ñuy defal yeneen yeneen nit ñi ñu ñuy jël tamit lépp luñ si mën a am si ñoom la kon tey jii nii boo leen ñëwee di defal ñun émission ñun dañuy sawar si loolu noonu quoi. waaw loolu am na solo lan ngay wax yeneen mbëru Moralaay bu leen Azem TV woowee. waaw leen di wax. waa ñu xam ni tey jii nii ay doomu Moralaay lañ rek waa ñu ubbil Azem TV seen bunt yi ñu ñëw teewee fa xam ndax tey jii nii lii day am loo xamante ne da def si mbër dafa bokk si mbër quoi ñu xam fi nga dëkk xam-xam sa cosaan ak yooyu noonu quoi. di remercier ñëpp di bége ñëpp di siyaar ñëpp di jox gaay yi dig daje loolu du yàgg si kanam tuuti xam naa ni dina am ay affaires yu ma dugal ci mbër boo xamante ne war naa ko dem seeti di champion boo xamante ni moo ngi dëkk Féba Kër Mbir muy Tony Junior defe naa barki Dembo Ndiaye la dem bëri drapeau chef de l' état. waaw salaamaaleykum. di waat di ziara ñëpp bu baax a baax di wax ne suñu suñu grand père Bécaye dafa baax rek laf cat ndax lii yëpp mbëbëtam la dañuy topp ci ginnaawam di teb tebb ba mu woñ yoon bi comme ni mu ko waxee rek ñoo ngi fii ci Fulum plus précisément xaw ma ko fii mooy fan. fii mooy xandaalu ah. xandaalu. Mhm. tey cantaan nan lay dundee ak jeunesse su xandaalu. waaw dund ak ñoom kon nii fii laa juddoo tey fii laa yaroo fii laa fowee bëre. nii dund ak ñoom ci jàmm quoi ndax sama fier la quoi bu mu leen di gis damay kontaan mooy la. sànq dama toog di déglu Père Bécaye Touré benn fédération. Hmm. muy Morolan. Hmm. ñu boole lutteur Morolan yëpp. Hmm. cantaa fédération boobu amoon tey lu mu leen di yokk wala lu mu leen di doru lu muy doon. mooy ñu gën a góorgóorlu quoi te xam ni ñu mbëri yëpp ñoo bokk benn objectif bu ñu bëgg ñu gën a jaabante xam ni mbooloo mooy doole daal. waaw ñu gën a jàpp xam ni ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif bu ñuy def man dama ñëw ma dugg fu sensible dañoo ñëw démb dama dañ koy waxee sa rakk wala sa mag mhm. sa doomu ndey mhm. ngeen bokk benn dëkk bi ngeen jógee muy fulum mhm. muy làmb faal dem démb te combat bu amoon ca Thiès am fa match nul lan nga gisee combat boobu waaw sant rek ah dañ naan sax ñun victoire la quoi ndax mooy lu ëpp solo mooy nga bëree ba say supporter xam ni daan nga quoi mais kon arbitre la mérite tere loolu am di ko gën a ñaaxaar rek di ko encouragé xam ni xale la après li si kanam moo ëpp solo quoi. tey sa nekk ak say raq ci dëkk bi say raq mbër ñoom mel ni Lamp Fall ko mel ni ñeneen ñeneen tey bu amoon yoon bi nga leen di teg ba ñu yegg yow fi nga yegg tey ñan yàlla mu dem ca kanam lan lay doon. waaw dama nekk ak nag ñooñu samay mag lañ quoi. Mm-hmm. samay mag lañu ñoo ma teete tey bu ma amee fit si làmb tey ñoom la quoi. Mm-hmm. ñoom laa doon xool ku si mel ni làmp ku si mel ni Abdou mi fi nekkoon Torompoor. ay saa kees. tey ñoo may fit bi tey ba ma egg fenn fi si làmb ndax suñu borom moom moo moo bind nit rek te loolu quoi. mais tey jii nii dama leen di sant bu baax a baax nu moom mel rek dañ ci gérer lu bëri quoi. ndeysaan tey Père tey Père Bécaye dafa dugg fa nii mooy dafa ñëw indi AGM TV fii ci Fulum pour rek bégal jeunesse Fulum pour rek bégal canta mbër tey bu amoon looy ñaax waa AGM TV wala looy ñaax tey bépp mbër bu nekk biir Morolan lan lay doon. waa AGM TV laa njëkkee rek di adduna moo demee noonu lépp loo gis rek tepp tepp la quoi site bi ngay gis muy ay Lit TV mhm. muy ay Bantamba TV mhm. ak ñeneen Leewtoo yeneen ak yeneen mhm. ngëm-ngëm la rek quoi ngëm-ngëm xam nga gëm ni tey jii ni ñooñ fi ñu àgg di jël yenn champion yi yéen mën ngeen kaa def ndax champion fii nii Morolan dafa bëri ay booy boo yoo xamante ne mën nañoo doon champion ëllëg ñu gën a jàpp dem dëkk bu neex seeti champion yi wane leen waaw loolu day gé lu bëri quoi aha Thianta tey ba amee combat fan la koy préparé day ñëw fulum wala yoof wala fan fan lay préparé combat parce que dañu gis ay ku mel ni champion mel ni Modou Lo day dem làqatu Lac Rose cantaate ba amee combat fan lay làqatu. waa man yoof laay waajee sama combat. yoof ngay préparé say combat yoof laay waajee. physiquement mentalement ak lan. Mhm, moralement lépp ah. kon tey bu ñu waxee ni cantaa bu Morona dañ ciy wax cantaa bu yoof mhm. cantaa tey nga nekk yoof sa nekkin yoof nu mu demee. waa sant ndax bu mu fa nekkee day mel ni rek maa ngi sama dëkk fii day mel ni maa ngi sama dëkk ndax tey jii nii. kon ñii niñ ma gëmee niñ ma bëggee niñ ma yaakaaree. Mhm. ba mu fa nekkee comme noonu laay doxee quoi ndax boo nekkee si benn bërëb nit ñi am fuñ la teg dangay ngay dox si mbedd sax ñu lay loo ni tey jii nii da war a dooni lii ëllëg. kon yow kon tey jii nii day mel ni yaa ngi fi ngay yeewoo quoi man bu ma nekkee foofu day mel ni maa ngi fii nii quoi. ñu ñëw ci cadre fan si këram ndax man dama bëgg yëngu-yëngu. Mhm. dama bëgg tey nit buy dem ñu koy gunge. Mhm. dafa am sama benn naataango bu toog fi sànq bu ne moom may président fan si club bi mhm. seen relation yéen ñaar lan la demee. waaw ñii moom dafa doon loo xamante ne maa maa ñoom ñoo fowandoo quoi. depuis xale ñoo fowandoo ba doon ma ndax tey jii nii booy ànd ak sa moroom si benn affaire ba mu yëngu si dara xam nga tey jii nii doo mën lu dul jàppale ko quoi ñu doon ñoo xamante ni ñu sori si man lañu ñuy sonnuñ si samay bi dama naan sax ñoom man bu ma amee làmb man yenn saa damay toogoo sama bopp sax naan mais man mi ñii ni ñuy sonnee si làmb ji sax man sonne wu ma ko noonu ndax duñ lekk duñ naan dañuy bàyyi seen yitte dem fu nekk ko nga xam ne am nañ yéene boobu noonu si man quoi waaw ñoom moom amu seen fay. jërëjëf jërëjëfati di bégg bu baax a baax a baax a baax xëy na dañuy def benn introduction bu ndaw rek di gërëm Père Bécaye ndax li yëpp mooma mu am initiative bi. am bëgg-bëgg bëgg lamb neena lamb làmb yëfam la ndax yalla da ko ko jaglél dañu ñaan yalla mu gën ci yok gën ci mën fi ñuy dégg reporter yu mag yi mu ñëw fofu non ndax li émission am dañ ci xajal té luñu ñëpp bokk moom dañ ci def nank nank su ko défé rek dama def sama jigen mu ñëw fi jaxar ak champion waxtaan ak mom ci fulla waxtaan ak mom ci jom waxtaan ak mom ci téggine soxna Aida la diva

waaw di dundee kon nit ak doomam ndax xam nga tey jii nii doom dafa xaw a sori quoi si waajur to nit kii moom boo juree sa doom da ngay am ñëwantal si moom. te tey jii nii dafa doon loo xamante ni man sama yaay mi ma jur sax li may def moo ma ko gën a bëgg quoi. daf ma yokk jom tey jii bu ma nekkoon Dakar di waaj làmb bu ma ko ooyee balaa mu ma naan dara naka entraînement yi kon kooku noonu mi ngi lay bàyyi xel quoi. Mm-hmm. moo tax daf may gën a yokk jom si loolu te xam mooy li rek day am ñeewantal si yow saa su ne quoi mm-hmm. mais ñoom dañuy dundee kon wàllu sport xam ni li ngay def yëfu góor la mooy loolu. Mm-hmm. d' accord sànq tamit dégg naa euh, sama góor euh, Baron mu ne. Euh, canta mi ngi féene yoof mais canta lan moo tax soo amee combat yo doo ngemboo yoof euh, non seulement da fay waaj di préparer sa écurie tout lépp a ngi yoof mais dañuy gis ni saa amee combat rek yow yaa ngi ñëw fulum di fa ngemboo wutali ndakaaru lu waral loolu waaw ndax man fii laa am fii mooy sama cosaan te man mënuma am lu ëpp fulum quoi tey bu ma demee tey bay dem yoof di fa bëree yàlla fii la Eh, fii la sama waajur nekk tam man bëgg naa bu may génn di xare man ma jaaxaloo samay waajur quoi. Mm-hmm. léegi Thianta moom nan lay dundee ak fan sa euh, bu combat amee ñoom dañuy dañuy dañuy natt ci seen biir wala dañuy ket ñoom en tout cas daal est-ce que mën nga ñoo wax nan ngay kii ak sa fan sa club. waaw ñoom ñoo tey jii nii dañ siy kii dañ cotisation wala tey combat bu amee tey jii nii ñu dem si ñoo autorité wala ñoo xamante ni tey jii nii wala li si gën a chaque jour moo ko maa ngi koy wax keroog si euh, kii bi ma ne ko man làmb li tax may gën a jaante ndax damay gis booy ñoom ba mu amee làmb dañuy jël seen xaalis bi ñuy liggéeyee mhm. di ko def si làmb mhm. te amaana mën nañu jël li ñu yor te di xaar canta mhm. xaaruñu autorité xaaruñu dara bu combat amee ñoom dañuy jël seen poos di def lu si ëpp ñoom ñoo koy def moo tax chaque jour dama bëgg autorité di si jàpp si wàllu billet si kaar mais lu si ëpp seen biir ñoom ñooy cotiser sen 100 franc seen fukki dërëm di dugg ci deug bi pour am fu ne la dem quoi. légui lan mo tax yow euh, bu boba yow est-ce que ce combat bu bu jotee wala yow buñ la buñ la owee rek euh, ñu ni la Thianta am nga combat jour tel date tel est-ce que yow di nga dem ci ay ño xamante di nga leen laaj que ni man dama am combat nga nga dis leen sa soxla dal pour que ñu mëna a ñëw la wàcc sur le terrain parce que c'est très intéressant en fait. mom la lay wax sank ni man la ñun buñ amé combat autorité la ñuy dem. Mhm. ñëpp te mun mun loolu rek lañ si mën quoi xam nga nit ki moom ku moom lam wala ku moom fenn mënoo si moom loolu dem wax ko sa soxla toog di nga xaar mhm. ñun bu ñu amee gomba dinañ dem fu nekk mhm. fépp fi ñu yaakaar si tund Morolan yi dinañ jàppale dañuy dem si ñoom mais buñ demee si ñoom tamit ñun dañuy toog di xaar ba làmb jot mooy loolu moo tax chaque jour dañuy bëgg ñoom ñu ñëw gën see jàpp quoi te xam ne ñun lu ñu ut Morolan moo tax ay ndaw lañu mënoon nañu xooli leneen mais tey jii nii dañ objectif jàpp def suñu objectif làmb dañ bëgg ñu ñëw jàppale ñu waa. Ah. voilà dégg naa ci sa ay biir kàddu nga ni euh, saa yoo leen amee combat da ngeen di ñëw waxtaan ak waa Morolan ah. lan moo tax yow wala yow soo amee combat euh, le fekk nga nekk yoof passé fa sa temps say entraînement genre yooyu noonu nga jóge foofu tamit ñëw fii nii dis waa Morolan sa problème est-ce que ni ngay waxee ak autorité Morolan yi di nga ko waxee ak autorité yi nekk feneen là-bas ay Yoff bu baax bu baax hmm. ndax tey jii nii man dama koy wax man rusuma loolu noonu tey jii man damay dem foofu noonu dañ may accueillir dañ may jàppale ñoom hmm. waa yoof dañ may jàppale bu baax ba ma yëkkoo te man juddewu ma Yoff man man Morolan mosuma toog télé di wax ay cantaabu bu Yoff hmm. yi moo naan cantaa bu Yoff mais man chaque jour damay wone ni man Morolan laa dëkk quoi te ñoom bu ma demee si ñoom ñoom dañ may jàppale kon nag ki nga xamante ni dëkkul si dëkk ñu koy jàppale seen sama waa dëkk ñoom dañ ma war a mën a jàppale muy ñëpp musal a maire beeg ñeneen yeneen autorités yi fi nekk yëpp dañ si war a jàpp quoi. yow waa Yoff dañ lay jàppale waa Monolance duñ la jàppale wala. dafa des bu baax quoi. des bu baax a baax waaw.

dans les bras ouverts Père Bekay soin spéciale à toi mais tamit maison spéciale à Diadev, ma Dev sama caméraman ma soin spéciale à Baron sama gore. mais Tianta, encore une fois merci beaucoup et bonne continuation Continuez à entraînement nga